Un drame est survenu tôt le matin de ce mercredi à Saint-Louis où une pirogue transportant des candidats à l'immigration irrégulière a chaviré dans la brèche. D'après la RFM qui en fait l'annonce, le bilan provisoire est de 6 corps sans vie repêchés et quatre survivants. Les victimes ont été transportés à l'hôpital régional de Saint-Louis. La même source informe que les sapeurs-pompiers continuaient les recherches pour tenter de trouver les autres membres de l'embarcation. Biram Souley Diop a été entendu mardi par le juge d'instruction du première cabinet avant d'être placé sous mandat de dépôt. L'administrateur général de PASTEF, par ailleurs président du groupe parlementaire Yewi Askanui, est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique et offense au président de la République. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, les députés du groupe parlementaire qu'il dirige exigent sa libération et dénonce une justice discriminatoire. C'est jeudi dernier que le maire de Thiès-Nord a été placé en position de garde à vue après son interrogatoire avec les enquêteurs de la sécurité urbaine du commissariat central de Dakar. Les épreuves écrites de l'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM démarrent ce mercredi 12 juillet sur l'étendue du territoire national en même temps que le deuxième tour de l'examen du baccalauréat. L'obtention du BFM est essentielle pour les élèves car